mbokk yi ñu ngi leen di nuyu baax te leen jaajëfal tey ñu am fii sunu gan Baye Fallou Gala Sylla bokk ci membre yi nga xam ñoo ŋànk communication daamul Xadim tey ñu xëy dégg fii ci dëkk bu sell bi di Touba jumaa joo xamante si nii ci rumeur yi nee nañ dañu ko tëj ay coow jib na ci yoo xamante si nii ñu bëri bëgg nañ ci ay leeral moom membre bu bokk ci communication Xuddaamul Xadim Baye Fallou noo ñu mën a leeralee jëf jooju noonu. waaw jërëjëf téléspectateurs yëpp euh, di wax ne xam naa ko ko wax ne dañoo dem tëj jumaa ja euh, boo fa demee ci tàkkusaan da nga fa julee tàkkusaan boo fa demee ci timis da nga fa julee timis euh, boo demee bu fekkee ne soppi wun ñoom seen imaam imaam ja la fa daan jiite moo la fay jiite noddkat bi la fa daan nodd moo fay nodd kon yaakaar naa ne tëj amu ci ay rumeur nag amoon na ay wax yoo xam ne jëm na ci jumaa jooju Euh, ndax ku ne xam ne ne dëkk bi dafa am nu mu tëddee borom it am fu muy suk njàng mu muy sukkandiku wala ngir moom sukkandiku di ca di ca di ca di ca di ca di ca di ca euh, jaamoo borom bi subhanahu wa taala kon képp koo xam ne dégg na luy nuroo ak juwoo seen diggante dana ko gëstu ji loolu nag moo tax xuddaamul xadim bi ñu jotee ndigal biig ci sëriñ Amsatu ibnu Cheikh Abdoul Ahad Mbacke mu wàcce ko ci sëriñ Basiru Coro sëñ Basiru bi mu xëyee ànd na ak lenn ci ñi nga xam ne ñooy eh, laaj na saqaafiya bi te mooy commission culturelle bi ñu dem fa teewi bañ demee it nuyoo nañ ak ñoom woo leen ñu bokk daje ca biir jumaa ja ñu waxtaan ci njëkk ak teraanga wax leen suñuy tànk ñu tontuñu ban ñu tontoo it nag ñoom yëkk yëkkati nañ sax caabi jumaa ja ba tëj ko tëjaat ndax jumaa ja buñ fi julli woon moom dañ koy tëj ba ñu diwee nag loolu leeralaat nañ ko sëriñ Amsatu biñ ko leere leeralee sëriñ Amsatu mu jaaraat fi mu war a jaar ci lañ tànne sëriñ Abdou Lahad Mbacke Ali di jarbaat ci docteur Khadim Mbacke di borom xam-xam sëriñ wax ko na ko nag lépp loo xamante ni bii dox na diggante jumaa ji ak kuréel bi muy Xudaamul Xadim ci sa loxo lañ ko teg muy lépp lu jëm ci wàllu saytu ga ba ca daaray alquran ja ngir ñu mën a ak Euh, doxaliin wi nga xamante ni bii moom la Touba di doxale loolu lañ teg ci loxol sëriñ Abdoul Ahad Mbacké Ali waaye tëjun jumaa ja terewuñ leen foog julli sensé luñ leen iliman léegi comme foofu nga daanaka bu fekkee ne jumaa ja tëjee imam ba sensé wu xuddaam lu mu fa doon toll. ko faa te yónni ko foofu dong ci ay daara alxuraan ak i jumaa ndax ku ne xam ne ne dëkk bi sëriñ Touba daf ñu loon nañu seenug jaamu yàlla na sukkandiku ci ngirum imam Malik. seeni référence na nekk ngirum imam Malik am na ñeneen ñuy dundu dund laneen ñey dund laneen ñoom ñoom la concerné waaye comme moom moo sancal boppam ab dëkkam wax ne nii laa fi bëgg a dëkkee digal ñu it nañ fi war a dëkkee buñ déggee tuuma yu xaw a niroog yu mel noonu danañ ko dem gëstu ji ba xam dëgg la wala du dëkk ndax ndax daje ngeen ak ñi nga xam ñoom lañ doon tuumaal ndax jëf jooju bi ngeen fa demee. loolu boo xoolee ci vidéo bi boo ko xoolee responsabilité ki nga xam ne moom la sëñ Xaadim tegoon responsabilité jumaa ji ci moom yëkkati na fa ay kàddu. kon dem kooku moo nekkoon jafe-jafe xam nga ñun ndigal lañ moo ñu fa yóbbu ndigalul sëñ Amsatu mu Cheikh Abdoul Ahad sëñ Amsatu it mën naa am am na fu mu jëlee ndigal ndigal loolu am na fu mu wàcc ndax ñun ba ñu demee ba ñu noppee rendre nañ compte damay bañ a tudd ay tur waaye rendre nañ compte sëriñ Amsa sëriñ Amsa it lañ fa fekk lañ ko wax lañ fa fekk lañ ko wax loolu moo tax mu delloowaat mu delloowaat yëf ya fam ko fekkoon nag ba noppi nag ne leen wutal naa leen nag ku dox suñu digganteeg yéen di suñ mbokk muy sëriñ Abdou Lahad Mbacke Ali di borom xam-xam ba noppi di jarbaatub sëriñ Xaadim ba noppi dëkk ca quartier ba léegi nag leneen lu ca toppaat ñu moom moo koy lijjanti waaye ñun du sunu lijjanti ñun daal lan ñu fa yónni woon dem nañ fa waxtaanaan ak ñoom tontu nañ ñu dellusiwaat nañ wax ko sëñ bi. kon daal preuve yi taxoon ngeen dem ca jàkka ja moom mi ngi sëriñ am waaw mi ngi ak sëriñ Amsatu waaw. Hmm. waaw sëriñ Basiiru Coro léegi nag day am loo xamante ne bi mën nga koo leeral ci biir mbooloo am loo xam ne mënatu koo lijjanti am loo xam ne itam mënees na koo lijjanti ci njëkk ak teraanga am loo xamante ne bi des koy bàyyi noonu waaye li wér daal mooy déggoo nañu ak ñoom ci kaw yi kàddu ba jumaa ji moom ku fa dem julliwaat fa. xuddaam ci une minute lan mooy li ko tax a sos dëgg mooy bi nga xamee ne yàlla dogal na dëkk bi sëriñ Saliou ne fii te ku ne xam ne ne eh, sëriñ bi dafa amoon méthode jàng leen bu mu tëraloon ñu dem ba mu yàgg ñu dégg na dëkk bi kat am na ñoo xamante ni bi wuute nañ ak njàngaleem sëriñ bi moo xam mu tudd ab wahabiste moo tudd moo xam ab salafiste moo xam mu tudd leneen yu mel noonu dañ ko daan dégg waaye dafa dem ba am ci biir dëkkub Tuubaa bi bi mu ci amee ci biir dëkkub Tuubaa bi nag moo taxoon daayira Xudaamul Xadim sosu ngir di gëstu yooya ak di ko jéem a eh, dénoncer luñ ci am nag lu leer dañuy ñëw ba ci sëriñ bi ñu ne ko nangam kat leer nañu ci bërëb sàngam nii ak nii lay la tëdde sama kàddu gu mujj mooy sant ñëpp tey woo ñëpp ci jàmm xudaamul xadim du daayire buy def violence du daayire boo xamante ne day yee fitna daayire la boo xam ne bil mawxisa wal xikmatul azana ci lañ sukkandiku bil mawxisatul azana wal xikma ci la daayire xudaamul xadim di dox